asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Ahmed la Cissé sëriñu képp kuy nàndite maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen wax ne yéen ñi nekk Amérique am fi mbokk am fi ay am di jàmm eh, nga xam ne fu mu nekk nii jamono bi kayit ci nekk na problème jafe na jaaxal àddina bi ñu bari di xalaat nu ñuy def dafa am benn mbootaay bu tudd Legal Chaperon ñoom dañuy jàppale ñi nga xam ne ñu ngi biir Amérique nekk ay immigrant foo mën a nekk xeet boo mën a doon diine boo mën a am dañuy jàppalanteeg yow ci sa ci sa mbirum kayit commencé ko ci working permit ba ca social security dinañ la jàppale yenn saay góor indi la Amérique du war laa dugalal kayit ngeen jote yenn saay mu indee la fiancé visa ta takku la yenn saay nga sëy di xaar sa green card tas yenn saay nga nekk góor mu di la dóor nga koy muñ jàpp ne boo génnee kër gi doo am kayit donc loolu yëpp dafa bari waaye daal problème kayit bu mu ci mënti doon rek yàlla mooy ki ko mën a faj ndax mooy dogal waaye su paasee yàlla ñun dañoo am responsabilité suñu responsabilité bokk na ci nag wax ak ñi ñu ci war a wax def ci ak ñi ñu ci war a defal jàmm rek la am ñi ñu war a defal jëflante ak ñoom ci wàllu kayit nag du kenn ku dul waa legal chaperon ñoom. Euh, dinaa leen jox seen numéro bi ñaari yoon ci français jox la ko ci anglais ñaari yoon nga woo leen waxtaan ak ñoom li nga bëgg loolu ngay am ni nga ko bëggee noonu nga koy amee mooy 301 814 3699 301 814 3699 loolu mooy 301 814 36 99 301 814 36 99 loolu mooy numéro bi ma di leen nuyu Eva Ndiaye mu nga ba Toulouse nit ku baax la séex la yal na ko yàlla defal jàmm Cheikh Ahmed Cissé nga koy nuyu Tima suma taalibe la mu nga ba Texas jàpp njàmburam loolu maa ngi koy nuyu buri nuyu naa la depuis Maroc su ma taalibe yëpp maa ngi nuyu kenn desut ñi ci YouTube bi di ko fa xaar maa ngi nuyu di leen ziar Cheikh Ahmed Cissé la yow jaawale woo ni nga mel noonu nga mel na wee jaawale woo ndeyaa bu Sonko nuyu naa la no just like this thank you

xadi nga ne waxal ci kaa bi waxuma ci kaa bi Thanksgiving to anyone and to everyone. bëgg nga ma Fam la woon Moustapha Cissé nuyu naa Nafi Cuisine nuyu naa kuy leen Pape dafay waxaat jërima ca wàllo ma bébé Fatou Diallo waaw waaw ndeysaan borom àndala ndeysaan su may bàkk day jël temps musut maa woy cof ma may leen ko mu la jaawale duñ la jaawale duñ la jaawale di ci fayu bilaay daf may di ci fayu dañ ci toog di ci fayu ama ci jaan dañ toog fay yéen ñi teew yi maa ngi wallaay suma soppee ngeen bëgg ma lool nag ma sax seen xol lu ko raw laa leen bëggee boroom xam-xam baa ngi nii toog te daal dama ñëw ubbi suma antenne ngeen ñëw di laajte may tontu ku amul question toogal seetaan ku mënta yéeg taal sa vidéo jarul yéeg baal na la mooy sumay règlement ma fi yàgg 30 minutes ak sëriñ bi benn mooy suma yaay li ma yàlla jox lu ma def waaw déggal loolu xam na sa ngor yaa yeween gore pareegul de daf may bàkkaat <laughs> xorom ak kaane ku leen cof jëriñoo waaye seet ku ko am danga koy téye wuy ma wallaay Pape soo ma wooyee ma wuyu la ndeysaan doomu yaay kan nga dem nag ci ko may mi jaay lu baax mi ci réew am live podcast. Text me, please. I am live. I have already started my podcast. Just text me. Listen. Bitchy face. Listen. Listen. Abdoulaye moo mën a mbalal. am jëriñ jëf ma bi bëgguma ko wane parce que man bëgguma àdduna ay yooyu man bëgguma yooyu yëpp wane yooyu j'aime pas ndeysaan bilaay lii neex na foog ñu baal ndeysaan waaw there's something I don't like some mothers they don't encourage their daughters when they do good in school But some daughters will appreciate their whereby they will even want to take their perfume because they love their mothers. But when a conversation had, the mother will be saying, Baba Manaway, my nephew Lusa. Lusa. Back ko nako Nyamlenda Omorowi Bao. Then they will take the perfume as a gift of encouragement for the brother to do good and stuff. Borom Seck Ndiaye Wow, wow. And that's not a and that's not a possibility. No, I don't. Listen. Dig, dig, dig. léegi bi waaw waaw ñu tëj ràññee ràññee waaw bi mu baaxee ba tey amara ba wayangoone xol rafet xalaat rafet làmme gaaw ci poos dëgër ko te mën a tax yàlla na leen ko yàlla jum yëngooti na sabar yëngooti na dama yëngooti na xalam yëngooti na yow gis nga yow boo waxatee amin ci suma ñaan ma def la lu bon toroxal la ci digg mbooloo mi wax yaay kan am nga jëkkër programme nga programme nga fi samedi bu jot nga tëddante def nga lu nekk yemal boo continuer waxaat amin ma tudd sa tur lii mooy la ah. kenn da koo xam cat dugg na suma lii di dinjug yëngoo dina sabar yëngoo dina ndeysaan daba yëngoo dina xalam hmm. yëngoo dina waaw waaw loor yi til jëli xalamal ma mooy nit ku baax borom fasu naaru góor yi yaa ma yow mi ngay góor ya ma ni loolu waral tey ma góor tak tak tak jiit mën na wéy ndeysaan jël dafa yaru bi ñaata yoon la koy wax dama leen di dimbale dafa yaru bi yi dafa yaru bi Pape Diouf di woy Omar Bawa ñaata yoon la ko wax ndeysaan ñaata yoon la ko wax mbir mi yëngu naa kii la I know you do. I've been telling you to stop. You gotta stop. You good boy. You don't, you don't disappoint me. You don't cry. Six years ago. maa ngi leen di nuyu di leen ziara you take it easy with yourself all right uh, happy thanksgiving to my one and only sister Jojo Mbaye Khadilo and every other sister in the United States of America happy thanksgiving su may jarbaat góor ñi happy thanksgiving <laughs> bu dëgër <laughs> uh, Cheikh Ahmed Cissé la ñëw na toog def ba dara nag lenn rek moo mën na xari euh, mooy suma dàll yi ni mu rafetee te gisuleen leen ko loolu moom métti na ma métti na ma ba ci kanam yàlla suma dàll yi ni rafetee te gisu leen ko waaye dinaa fexe ba ngeen gis ko man ak yéen ak dàll yi xoola caméra bi nag léegi-léegi day bañ ci caméra bi la caméra bi day bañ léegi-léegi mais xam naa bant bi moo xaw a bañ nii rek caméra bi parce que daal dama cee sonn dama ko soppin <laughs> ba Florida foog ngeen gis ko apprécier ko ku ko def ku ne ku ko wax la bëgg day saa xam naa balaa wane daal yi di pare su ma <laughs> tëstënee su ma oom dina damm de ni ma koy tourner nii di leen ko forcer <laughs> daal yi dafa rafet ba ci suuf sax dafa set ci Amérique lii bu doon senegal ba dayu fas yi jaar fii ba suuf si dugg fii mais gis ngeen daal yu rafet laa sol Hmm. ak man rek faaw ngeen gis dàll yi <laughs> dama ci sonn <laughs> dàll yi den koo jënd ma dugg ci avion doon tukki affaire ba réer ñu wër ko dàll yi dama ci sonn faaw ngeen wax rafet na ngeen tudd ko <laughs> sinon duma leen ko baal ba ñu ma ci naka yaram bi uyul misis ba nee ma di color is given yii laa bëgg dee leen apprécier suma dàll yi it cost money <laughs> and I lost it we were searching for the bag through Delta I said like two months or three months later magu ah magu gisoo dàll yi la <laughs> magu jërëjëf yàlla na la yàlla fay two months magu ah magu <laughs> maa ko man bëgguma wane daal lii sax c'est juste rek it's just you pour wan leen ne apprécier naa leen that's it loolu la rek tey moom live bi moom buñ ko bàyyi woon ci dàll bi tam du yàq dara ah, bàyyi live bi yëpp ci dàll bi nii kal ko ci dàll bi ngeen di wax baax baaxi dàll bi su boobaa duma leen mere de ah magu waxaatal waay lii rafet na waay

yuuxul manjaay abu demba ee lébu eh. yaa ngi nii di seetaan waxal na riir oh. mbalax ñu dem jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg ndeysaan now. I'm, coming back to the house in the next 14 minutes. But if you don't mind, you can go to the house and talk. They said. You don't want to go long? You don't want to go long. You can just go alone, I'm coming. Hey, good boy, you can make it. I'm American, I'm going to You don't want to go home alone? doo forcé doo dóor fii ku xale Amérique doo forcé doo dóor neexal rek da koy neexal ci loo xam ne da koy gaañ mu naan la lii laa bëgg nga koy neexal pour mu bàyyi nee <laughs> na naa fay live ba topp ko ñu ñibbi <laughs> gune Amérique la waaye su doon Sénégal katasa toog kankurang baa ngi ñëw de mu naan yee nga naan ko noppil ba lañ lay lekk <laughs> ma ne booy naar mu ne banaana lay lekk pour ma yëgal leen ko maa ngi nuyu di leen ziara Cheikh Ahmed la Cissé tey de programme bu mag moo am fii Amérique the name of the programme is Thanksgiving Thanksgiving noonu la programme bi tudd Thanksgiving nag laa xamul mooy lan moom lan mooy Thanksgiving man I don't know what is Thanksgiving man daal gis naa ne rek nit ñu fonk neen ko ñu ngi koy célébrer waaw ah, loolu moom xam naa ko waaye Thanksgiving lu ko waral ak pour lan ñu war koo màggal wax dëgg su neexee yàlla rek man xaw ma ko. xanaa mhm. xanaa dama la ko bëgg a pour nga kii nga nga ma wan ma wan la ko. dafa dafa tombé juste ma romb sa live fekk may lekk banaan dafa tombé may romb sa live fekk may lekk banaan tamit si de ma xool na lekkee banaan ah nga xool nooy lekkee banaana bi <laughs> waaw waaye lekk bi rafet na te am taalibe waaye mooy naar très bien très bien lii rafet na am na am na taalibe. defaatal ma xool lekkaatal banaana mooy naar ma xool. lekkaat banaana ma xool. mi yaa mu tooñ. ñi amul tooñ yow mi la moom rek après su ma gisee damay taxaw duma ko tey très bien bay ma ne ko macha allah rafet na am na taalib très bien ma yooyu laa topp ma yooyu laa topp jeex na mais noonu naa la maa la cëpp jàmm. alhamdulilah. maa ngi ci jàmm non foo ma seet la nag. waa Amérique Birame ma ci poubelle bi s'il te ma ci poubelle bi ah. moom foog nga ñëw. non foo ma seet si la ba pare boobu dama fa bëri ay fans. Amérique. ñoom nee nañ nee nañ bëgg France rek mais France du sama kër. waaw loolu lañ ma wax même ambassade bi dañuy wax ni sam benn benn femme buy liggéey foofu neen ñoom dañ koy wax ni kii kii ci ñun la bokk <laughs> mais non man nag Sénégal laa bokk de dañuy xaar de sëñ bi temps yi dama am envie xool temps yi ay roog ma wax def neex na la sëñ bi xool temps roog yi ma def gis naa ko mais nag man nag lii xama lii xama la laaj jum bëgg ku ma ciy téye di ndayam ba buy tàkk. hold on don't come here don't come here. yeah but they're gonna see you. and you know you are you shouldn't be exposed there. now you can go to your mom I'm coming. say hi to your mom I'll be there soon all mbës salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mani. Hmm? Eh, booy naar maa ngi lay siyaar mani yow ni ngay <laughs> ni ngay neexale gone gu lu tax doo doo koy neexale taalibe taalibe yi man dama bëgg def ko ñaar nii nu ma koy defee. ñaar bon mais modérateur yi mën nañ ko man da doonatuma modérateur waxal modérateur yi ñu kii suma lii moo yàqu. non modérateur yi mën nañ mën nañ la ko mën nañ ko def ñoom. mu ngi nii def naa ko. taalal sa caméra bi. xaaral ma dem ci kii bi ma dem ci biir su waaju laa de waxu ba lool ma ne. Ah. ne ngay neexale gone gi laax lu tax doo ko neexale taalibe nan tey. yéen ay wolof ngeen kii doomi américain la. <laughs> yéen ay bant ma leen doon naxee. nga ne day def. day def lu koy da koy deexal pour bu baaxoo. ki may bëgg a way mooy seet. Oh. ndeysaan Ameth Cissé mu baax mi nangoo liggéey bëri jom. borom àndala buri dundal basaay maay di baam Cheikh Ahmed Cissé. Cheikh Ahmed Cissé sa yaay dalaa gërëm sa baay dalaa gërëm cat di la wayal waxal. way la leen ma si xamee Cissé yónnee ma atem yónnee ma numéro yónnee ma numéro ma teral chat boo ma yokkutee ma def la lu doxaat eh oh atem yaa ma yónnee li yónnee ma numéro chat mu gaaw ma teral. loolu dëgg la. ku la yéene jàmm am jàmm ku la yéenewul jàmm am jàmm see am sa bay dala ñaan. nee la def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen bu ngeen ko deful ni ko yàlla def. mu jaaxal leen mu def ba jaaxal leen ca wel. ndeysaan. way bi doo ko way ku ñaaw doo ko way baa doo la si amee Cissé. borom àndalaala buri Seex Ahmed Cissé yaa baaxi maam. caat nee naa la kookoo tax ñëpp di wax fu mu dugg mu jax yàlla boo dëgg yàq. yaa baaxi maam baaxi baay. noonu wax ma ñëpp si fan. Oh. la yërëm nga ni. yaa baaxi buri borom Amérique caat nga ni.

man kay lenn dong lenn dong moo ci jaaxal ci wéy bi lenn don laa laa la moo moo ub sama bopp waaw rafet gi koo dàq koo koo fi dàqul dàqul loolu non non non daf ne doo ko wéyal ku ñaaw waaw wéy bi du ko wéyal ku ñaaw waaw waaw ah. mm-hmm. loolu la wax xam nga wéy bi ku ñaaw mënu ko am mm. te da <laughs> te da ngay insister wéy bi ah. ku ñaaw mënu ko am ah caat caat caat kilifa nga nag caat mais boo demee bay wëy di wëy kilifa dangay ngay loo xam ne nopp bu mu dugg ñu xam ne kii ah toppul <laughs> toppul wax ju neex rek <laughs> waaye wëy wi duñ ko wëy <laughs> duñ ko wëy ku ñaaw moom kon xam naa ne moom wëy caat du caat du ko wëy du la ko wëyal taar rek caat du ko wéy doo ko dégg. bàyyi jëloon duru mais ATM bi gagné na point de. Ah, am wayant am yaa wayli am yaa wayli baa léegi ATM fexe na ba dugg suma wéy nii. Ah. nee naa la ko war a way cat yaa war a way yaa tax ñëpp di wax yaay king ambiance wel mbokkum yaay papa Diouf a ñoo ko bàyyi wel wel ah. nga ne ATM fexe na ba dugg ci. wala ATM dafa fexe ba dugg suma wéy bi man. ko juba ñu ko na ba bokk léegi léegi yow kan la bokk doomu ndeyu Abdou Cissé mu ne Pape Diouf fexe na ba buruxlu suma wéy bi waaye dina la waaye boo ko ma ngi koy nuyu bu baax kontaan naa ko gisaat ko waaye namoon naa ko audio bi dama juum léegi ATM moom fexe na. yow kookan la. ATM fex na ba bokk suma suma wéy bi man lii naka na ma trop. léegi nag acca bu ñu noonu. <laughs> ay. mbës yow sa lii ñu koy jàmmal nga teg pisement ci ron rek ba xaxataay aju sa pisement bi nii. pourtant léegi laa ko sol dama damaa pare live rek si damaa gis nga taar rek ma fay dem xëppoo ndox so sëppoo ko li ma la fi wax démb yëpp safu la mais sëñ bi li nga ma wax saf na ma mais na ma jaaykatu tisi yi nañ joxe tisi ñawkat yi ñaw ko envoyé ma ko ma koy sëñ naka leen lay joxee tisi man nit ñaa ngi rang di ma jox ay tisi may bañ ñawkat yi ku ne di ma woo kaay ma ñawal la parce que dañoo gis mais sol lu rafet mais léegi yow ku la ñawal day yàq ñawam non buñ ma ñawalee ma sol ko loolooy problème bi nit ñi nuñ ko ci yow maanaam yow foog nga tàmbali. yow dèjà yow yaa ngi nii. yow loo sol doo ko solaat. yaa ngi koy dajale loolu yëpp boo envoyé woon ma koy sëñce. envoyé mooy suma problème xam nga ñaata nit suma garab yi envoyé gu wala nit seetlu ba pare pour envoyé audio sa seet nag may neexal. loolu tamit liggéeyuñ la ci. waaw man man nag man nag xam naa ne man dama toog seetlu suma boobu ma ne man mii cat dugg na ma. tey nag yow parfois. dëgg dëgg mbàkke mbàkke nga. lii moom sawar nga ci. wax wax lu jëm ci man. xol bi ci boppam mooy sedd. dëgg dëgg mbàkke mbàkke. moo tax nee naa leen seen sëriñ. bokkul ak ñun ñi nga xam ne dañuy nekk di xool billet naan bii cher naag bii naam gam la sëñ bi day dox ba aéroport di rivalisam leneen jox leen. bi ma ne leen sëñ bi. bi mu duggee États-Unis ba léegi mu ngi def sport pour toj biir bi mais daa bëgg daa bëgg dund ko neex biir bi mën ta toj. non mais man fii ma ñëw nii suma biir mënu fee baaxee damaa ñëw ñu jox ma ma maa ñu yàpp. life life sedd bi ñu indil ma galaas yu ndox pour ma naan lii kañ la biir bi di toj lii. te demaguma demaguma seeti Aminata Darame këram man suma ma demee daf may rey. ami eh sëñ bi Aminata paypal léegi boo ko déggee ci diggante bi nee ko ba daa dafa juum de. lu tax mu paypal la. non mais moom noonu lay def ak man de. Aminata à quelle base et pourquoi. non mais yow yaa fi toog naan saa su ne mbës day toog di leen bëggal da ngeen koo war di teral. yaa ko xooloo ko. maa ko. waaw Amina Tanki. waaw moom mbaa dina am dara ku ne sëñ bi rek mu jox mu jox la. bii paa juum la ma daan jox. ma koy gis naan ah li neex na tey daa juum <laughs> tey tey boo ko gisee ba gisee loolu dama doon kii daa juum nee mbës dafa doon lëbbal. waa Thiat Seck. waa sëñ bi. caat ATM fexe na ba buruxlu ci suma wuyu réew yi. da war a buruxlu mooy yoon. kuy woo caat bàyyi leen jëluñ ATM mu naan picc ATM waaye seytaane nga yow. ci kii commune commune bi laa wax ku ku ko moomale jëlal sa bopp. da war a buruxlu. si Ahmed Cissé daa cee war a buruxlu ndax man yëguma ne woon anniversaire ñëw na ah. ate moo ma ka waax moo ma ka waax Cheikh Ahmed Cissé man di yëguma woon xawma woon ndey saanam sama ndey papa ñi ngi dundal ba sey may di baawaan waaw waaw waaw sa baaxi maam ndeysaan ndeysaan yaa baaxi maam baaxi baay yaa teem dana ci buruxlu ndax moo ma wax sa anniversaire moo tax ma ñëw Seex Amet caat sekk ATM waru cee buruxlu ndax tey du sama anniversaire ko mu buruxlu ndax dangaa baaxi maam baaxi yaay caat sekk caat sekk atem bu buruxloo da koy yàq ndax tey jii du anniversaire caat bu atem buruxlu Thiat Seck ATM kon moo xew ba wax ma ne sa anniversaire tay la man de comprendre nu ma kon waay ay wa xanaa ñeme yàlla ak ñëre ne Ahmed waaye tey jii du suma anniversaire Thiat Seck waaw mais mais wi ma daf daf am yéene bi dafa am dafa bi kon ne ma daa am yéene bi rek ne ma Thiat wéyal ma wéy wéyal ma sëñ bi yàlla Thiat sëñ bi nga ko war a wéy da lay teg rek ndeysaan foo loolu la teg foo nekkul quoi ndeysaan. day buruxlu rek caat xam nga wuy wëree bi ma mëree ATM bi ci buruxlu daf ma métti. lu mais caat. caatu ATM mi buruxlu. waaw bi métti na ma caat. waaw caat lan mooy sa numéro bi am Wave ak Orange Money su ma taalibee laa bëgg ñu teral la ba pare ma teral la. 77. 552 31 55 mooy sama numéro. ndeysaan am na Wave te am na Orange Money. am na am na Orange Money. 77. 552. 31. 55. 55. oh. Aminata Dramé. teralal ma caat. ndeysaan ñun su may taalibe yi dugalal leen caat yéen ñi ma bëgg. am na ñoo xam ne moom seen wéefi léegi ñu ñëw ndeysaan xadiloo ndaam siré ma ca Florida Miami musoo maa rusloo joojo mbay mbës jéggal neen la parce que sa xol bi rëy na rëy goo xam ne dix mille yi nga dese mën ko jox yow naa la yow baal xol lu ma dese may naa la loolu mbës may naa la loolu baal naa la cinq cent cinquante deux trente et cinquante cinq mu ngi noonu waaw xaa xaaral ma ñëw caat bu leen dem mais caat. waaw. caat ndaanaan kullu fëdle fëdle woo. caat <laughs> wayli wayli baa ngi mooy yow. yow da baax maa ngi dégg sax ma dina daj. caat ngir laay war a suuli booy woyati sëñ bi. Mm-hmm. bul ne woy bi du ma ko woy ku ñaaw. dëgg la ndax sëñ bi rafetut. rafetut de. rafetut. ah caat moom sëñ bi moom naa la nuyu naa la mhm. ku ma bàkk ma feeñu la caat dangaa dangaa tëj sa micro sëñ bi sëñ bi li li ma nuyoo rëy na ñun ñaa may wéef ñëpp a wéef de wóor na sëñ Bamba den la war a wéef parce que danga wéy seen sëriñ dëgg la même parce que xanaa xamoo TikTok sooy live nii nga génn dafay pousse mais borom TikTok bi day dégg. Mm-hmm. Ah. Ah. yaa ngi dégg la lu neex. dégg naa ko waaw nga ko naan suma sëriñ la dama koo bëgg. ndeysaan waaw hmm. yow da nga ci man doo ma jëw doo wax ci man lu ñaaw. abadan loolu moom mën naa koo waat ci yàlla mu bind suma bakkan. Mm-hmm. fu ma yendoo di la wataane doo fa ñaaw Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed fu ma yendoo di la wataane doo fa ñaaw sunu ndeya bu sonko suma doom la wéet na la yaay sunu sëriñ ndeysaan fu ñu yendoo di la wataane doo fa ñaaw ndeysaan Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Cissé yaa ka baax maye doo di la wataane doo fa ñaaw laay laay la daaw yow sama doomi yaay ndeysaan eh, eh. laay day da Ahmed sama doomi yaay yow ya daake yow ya daake ndeysaan fu ma yendo di la waxtaane doo fa ñaaw si xamet si se yaa lal say basang lal say basang lal say basang nga ne bilaay bilaay walaay di xawaare yada yada ndeysaan baaxi baaxi ma Mm, yow Thiat Seck Mbacké seetal tur yi ñi la wéef ma gërëm leen su may taalibe ndeyaa suma doom la wéef na Aminata Dramé suma taalibe la wéef na xadiloo suma jigéen la wéef na xam na ñeneen wéef na tam mënuma leen xam wax ma seen turi ma gërëm leen àdduna yëpp. xaaral xaaral ma woo ko ma liiral bas. kaay leen. mbës na nga caat wër lay def. promotion sekk laa bëgg nga teg loxo. caat kay kenn la. Hmm. promotion caat sekk laa bëgg nga teg. nit ñi di ko yëg. dafa mën a wéy de. caat daa mën a wéy ba day focc wéy. daa da am morom. da ciy nga jàpp ne muy yow nga nekk ci sër moom muy foof. Moustapha Moustapha moo wéef ak Aminata ak Soxna ak Ndey Moustapha. ak Aminata. Aminata Dramé Amérique. waaw ak Soxna. Soxna. ak Ndey. Ndeya bu Sonko bu Cheikh Ahmed Cissé nee na ku ma bëgg mu bëgg. gisoo fa xadiloo Amérique. xadiloo ñëwagul de. maanatuloo nag. maanatuloo ñëwagul. maanatu joxal caat cinquante mille yow. léegi nii zéro stress joxal caat cinquante mille. nu mu tudd nga ne. non kii moom léegi dina ko def tudd naa turam moom xam na turam xam na numéro bi joxal caat cinquante mille yow. bi nga nekk fii may sa càmme ñu may wéy te doo joxe yow cinquante mille te cinq minutes laa bëgg mu mat caat na ma wax ne jot na maanatuloo cinquante mille continuer tur yi. mais mais yow lii moom. bu ñu ci jugee on wave text me the so I moom bu ci jugee xanaa caat day dugg studio. du dugg studio teralaguma ko lii dama koy nuyu ci wave bi rek ci tiktok bi man ku ma woy ma teral la man. Hmm. daf ma fekk live rek wéy ma ma koy teral ci live bi mais teralaguma ca inal man naa ilan ndeysaan min masa yaa yaa wéy ma naa ilan nga ne ma min yaa inal man naa ilan waaw yaa yaa ma naa ilan mm. min yaa ay waay ti lu ñu woote yaa ngi dugg leen dem ku fa dem Serigne Mansour si jàlle la ndeysaan bay minti ni max na inal ma naa yilan waaw waaw ndax min min masa yaawo yaawe mana yilan ndeysaan tamit min yaa ay waayam leen ci naan sow mi ah jaay nag wi ëpp naa def maa lu ko may ardo jël nagam mbay mintini max naan ina mana ilang lami min masa yawo yawe mana ilang lami min lay lay la daawa ana waa kër xaadim rasul bàyyi sëriñ saalim mhm. xaara ci caar xaara ma jox kii numéro mu dugal cinquante mille bi caat eh, baal ma kii mu ne nga bàyyi parce que xaalis yi am na kenn eh, maanatu jëlal 77 la 552 23 55. déedéet déedéet du 25 eh, non non sëñ bi yaa ngi juum de sëñ bi noonu xaaral xaaral sëñ loolu. caat walaay dafa bëri fee maa la gën a xam numéro may ma loolu. waxal maanaam 77 la 552 31 55.

ndeya bu Sonko ne ne boo bàyyiwul Maodo mi ngay wéy nii mu jox la xaalis lu waasam te su ko joxee may am <laughs> xam naa ne mbir mi ci man lay mujjee Ndeye Kebe Ndeye Kebe da nga ko wéef yéen a ma bëgg nag eh, mbës am naa benn taalibe Heaven doo turam ci man Heaven waaw daf tudd ko kay xam nga ne maa ngi gën ci yàlla xaw ma góor la wala jigéen hmm. xaw ma fu mu dëkk xaw ma nu mu tudd yow mu nit bu doon doon nga tudd Heaven waaw xaw ma ko. Even may ma loolu may ma loolu. waaw moom la jël bul yéegal. moom la. xamoo góor xamoo ma ko damaa gis mu fidèle rek di ñëw saa su ne waaye mu Even ba tey ma laaj ko góor nga wala jigéen mu ne ma nit laa jaami yàlla laa walaay. ñuy waxtaan lu bari ma ne ko jox ma sa numéro mu tontu yëpp aju numéro bi ma ne ko yow de ceet na dootoo dégg jox ma sa numéro yow. <laughs> fan yële mooy jigéen bi grand dam bi nekk Angleterre Gambien bi. wala Doucouré Doucouré rek lay noonu ci suuf. non Doucouré moom mënuma ko fay dama ko baal. Gambi Gambien Gambien bi nekk fële eh, Angleterre mooy ki ki ki jël sogaan yenu ko fan yi ki. waa jaara mooy jaara sa jaara soxna jaara waaw gis daal Heaven ni muy partager numéro bi ku baax mu ne day may Heaven teraanga. Evan bañ na du ko jox numéro bi. ñëw wax ma ko ma ne ko tàllalal jaay bi boobu xam naa li ma xam man mu dem xeful na ko nit ku baax nga rafetlu naa ko jox ko suñ mu jox ko taalibe maanaam Evan daal moom ab moo ko gën a dee xam nga su ko joxee turam. jox ko dëkkam jox ko numéro. waaw di ko xam mu ne mu ne ko mu ne ko rafet na trop. baax nga ku am yéene nga jox ko sëñ bi jox ko taalibe sëñ bi ki dugal na ma sëñ bi ki dugal na ma cinquante mille de wax. kooku suma kooku ay maanatu la bu mu ale samba ale samba andala buri lay way waaw makolo mu ale samba si Ahmed Cissé mu àndal la buri waa. ku ba jigéen ji moo dugal cinquante mille. àndal la buri dama koy woye. mu Cheikh Ahmed. maanaam waaw. andala buri ku ka moom si Ahmed ah. nekk Amérique message neen ma su amul tur vrai bi nekk ci tur bi xaalis bi du ñëw ñetti jigéen ñu ngi Amérique den bëgg a yónnee seen mbégte ci woy bi nga woy seen sëriñ Mor Seck Mor Seck MOR sec MOR sec ah. MOR space ngeen def sec. moo nekk Mor sec gaaw leen. soxna Faati bu waali moo na mu noo def. Ah, maanatuloo ndaam sire Aminata Darame siggil ngeen ma. mbës moom xam naa su ma ko bàyyi woon xaalis bu mu war a fayalee doom ji da koy jox caat man xam naa cofeelam ci man. even yow baal neen la parce que boo yónnee sa tur day feeñ ak sa numéro yow may neen la loolu. yow tàppateere di bind numéro fii. pourtant eh wuy ma nag li fi kii yëpp dama daan dugal. si déglu ma ba benn bis ci laay doog ci laa rendre compte ni man sama tur mu ngi dem. dugg ci wér bu saa non non non non non not more sec it's not M O R T it's M O R sec sec not as Gambia sec sec rek just sec S. ECK Mor Seck. not Mor Seck Mor Seck. Gambien yi ñoo ñëw di di bind Seck man xaw ma ku leen ci dugal sax man waxuma leen yéen. Gambien yu am xaalis la waaye yéen pauvre yooyu di bind Mor Seck waxuma leen. li mbiru xaalis la pauvre neen ma xaar ba ci kanam. géwél moo woy géeram teral rek moo fi nekk ku mën na teral ku mënu noppi. seen but I don't want my name to be called. waa am na ku nekk Amérique ku yónnee mu ne bu ma tudd turam su ma jigéen la moom lu ma dugg mu nekk ci Thiat Seck dégg nga xaalis bu jógee Amérique dugg na léegi nii. waaw waaw mu ngi ñëw kay ñëpp ngi dugal wóor na sëñ tubaa waaw waaw yow yaa ma bëgg xaaral gaa yi ne la teral ba nga daw. waaye mais si Ahmed Cissé li def nii man kontaan naa rëy na trop nag wax dëgg yàlla booru na sëñ baam waaye nag man lii xam ma koy yow gën nañoo déggante na si làmb ja ñu gisee nga yëkkati xaalis bëri jox ma wóor na sëñ baam nga baax lool ñu sax ñu daje yow wax dëgg yàlla di gars yi di la dar na la Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed nga gis ma ñëw ci man boo xool ma xaalis bëri naan ma loolu naqari dee ko denc yow xoolal liggéey rek loolu du ma ko fàtte mukk mm-hmm. wóor na sëriñ Bamba loolu naqari ko denc yow woy rek moo la war del woy rek ah. ko fàtte nag bëgguma lu la neex du moo tax moo tax wax baax laay wax man ni nga baaxee xam nga waaw un jour déggat nañ téléphone sax du ma ko fàtte si live la waaye ni ma waxee sax ak yow sax boobu boobu man neexuma sax wax dëgg yàlla waaye bi ma dajeeg yow ban jàkkaarloo laa xam ne yow yaa gën ci àdduna kenn gënu la mhm. wóor na sëriñ Bamba boobu dama bëggoon rek li nga def ni tey li nga def ni tey lu tëgg soirée ma dagg biee yi bañ jeex gàddu Pape Diouf indi ko mu woy ndax géwél yi dañoo war a ànd te musique doxul jëree war a dimbale musiciens yi lay dëgg la musique doxul waaye musiciens yi ñu fekkoon nañ ñëpp ni eh, ATM leen mel du dox de ah meloon ni di bañ a du dox de ATM dugalal na ma sëñ bi danga koy sagar rek barke Allaaji Fàllu Mbàkke xam nu mu dëkkee ak man wóor na sëriñ Bamba sëñ bi du ma la ko nëbb foo nekk mu ne ma ma ne ko wóor na sëñ Bamba Adama eh dama soxna si daa war a départ daa war suba de billaay daf may dugal xaalis si loolu la dëkkeek man wóor na Serigne saali Mbacke. ah bon. bii ba pare jox ma jabaru jabaru tubaab bi daf ma koy jox sax ñuy waxtaan wóor na. Serigne Saliou non kenn ci jabari tubaabam yi. ah boobu moom da ko wax suuf ma kenn ci jabari américain bi kenn ci ñoom la paas. non yow sa waay la bàyyi loolu bàyyi ma waay. kenn ci jabaru américain bi la la paas xool ko. ay jaww ji noonu. xool ko. <laughs> yow de jëloo moo xeex sa dura ba ma jël la. <laughs> non c'est que. c'est que c'est ndeysaan peut xamoo sax fonk gi ma la fonk ak bëgg gi ma la bëgg ak fi nga toll ci man. dëgg la wane ko yaa ma gënal mbës de yow sa bos moo gën a sincère bu mbës. gis nga tey am naa fu ma doon toll tey. waaw. woo Thiat Seck naan ko weel Cheikh Ahmed du ma ci fekk dama naan ko Thiat Seck mu ne ma naam ma ne ko duggal mu dugg studio ma neel Cheikh Ahmed wax tuddal ma ay maamam teg ci àndalaa bu rek doy waar woyal ma ko lu ne asamaan suuf. léegi yow lan moo tax yow tudd waxoo ci euh, sëriñu mbës. coow li coow li laa. mbës mbës segoor ndeke coow li coow li coow li mbës laa nge tali mbës laa ay mbës ndeke talibe Seex Ahmed moo ko baax bañu ma yàlla ndeysaan wuy bi du yàgg ndeysaan bii moom soxor la ndeysaan déggal loolu bi nga mayee ñu def waaw bañ ñu woy la rek jaral na ma li caat caat woy bi dafa ëpp doole da caat ma ne ko atem neexut ba neexut nag waaye non man damay seetal bi ndaanaan la mbës may ñu mbës su ATM ah? ñëwee amatoo cër ci man dañuy waxtaan ATM waxal yaa war a wax. non non Thiat Seck ndaanaanu Thiat Seck. nan tag TikTok amul comme ma def yow nga denk ci kaw mbës nekk ci munu mënut a nekk. da nga koy wàccee na xaaral. wàccee naa ko. yéegalaat ko. léegi su ma ko yéegalaatee mu nekk ci suuf. suuf. yaa xam TikTok nag ana mbës na ñëwaat mu dem ci suuf wàccee naa ko <laughs> non da tolloo lii bëgguma ko. xaaral ma wàccee yéegalaat ko. yéegalaatal wàccee ci kaw. caat waa caat ñëwaat moom ak mbës ñu leeroo ci suuf yow ca kaw. ah <laughs> gi yàlla boobu jeex. <laughs> ma loolu ma indi caat sekk na caat ñëw mu leeroog mbës ñoo tolloo maas.

def ko def ko ñaar ba ñetti yoon ma xam ne caat ak bëggum deraangam ak yëg-yëgam ci nit yëgul loolu ba mu déggu ma ma ne ko caat bi sëñ bi de fan yëpp ndeysaan dalay dalay dugal sa vidéo mais wa yegg nga ko li sëñ bi doon wax lu baax rek la doon wax ah ndaanaan la kenn dàq ko way ci réew mi ku mën a way la yow mbos xam nga léegi wàccee neen la ba yaa ngi ci suuf atee mu sa kaw dañ lay miite dootoo wax. lii lii de la doon wax mbës seytaane la bu ko déglu lii de la wax <laughs> tam naan de la fi doon wax ak sa mën way ak bëgg gi la bëgg. yow caat dafa jàpp taalibi yaa ngi koy woo talul kenn mu nekk miite na mu ngi ci boppam bàyyi caat. ndeysaan bi ma ko woowee bi ma ko woowee. ko kenn si sa jabar yi la ATM. sama jabar moom moom la moom mooy dafa bëgg ma wàcc moo tax. ak yoon na dëkk boo dem am fa jabar New York amoon nga fa ñaar. bi sëñ bi. ak ki moo gis nangu woon. nga ñëwaat North Carolina amaat fi. léegi daa am kenn ma yow nag loolu tabax yàq ko bul ma yàlla bul yëngal. ba pare utee naa ñu yëgoon suma live te nekkoon France. <laughs> waa baax na ATM. <laughs> <laughs> waaw sëñ bi. waa Thiat Seck. waaw sëñ bi sëñ bi sëñ bi man nag bëgg naa ko waa barke Serigne Saliou Mbacke. maa la gën a bëgg yow dama laa bëgg naturellement laa la bëgg yow. wóor na Serigne Saliou Mbacke bëgg naa trop kontaan naa trop wóor na Serigne Saliou. dama laa bëgg. man dama bëgg dama dégg gudd fan ak wér. dama woy maanaam li ngay woy boo amoon jàppale bi mhm. ci war passé nga fii. dëgg la dëgg la. mais jàppale bi warul nanga xam ne moom maa ngi sa ginnaaw te man duma ko ndaw de. déedéet. remarque bu paanee sax bu ma ko poussé mu dem. déedéet. dëgg la de. waaw ah, waaw remarque bu paan taxaw. sëñ bi man bu ma ci tegee loxo pour boo ma jegee rek lépp baax wóor na Serigne Saliou Mbacke. maa lay dugal studio. barke Serigne Saliou. studio jéeri jéeri wala Matar Diop suba teel man mii maa la ko wax ci live bi maa koy def. oh dégg ngeen lii. wuy leen lii ba pare ma boole laa laag producteur mu kilibal. Assane déglul déglul li mu wax. barki Baye Niass mi ma yaakaar waxuma waxi télé. Ah. yow studio boo ma yóbbu rek ma dem studio ma sama teel studio baaxan jëre baaxan jëre yëpp baax na foo ma ci yóbbu ma ma loolu maxu moo gën a baax le bàkkaan bàkkaan bosam dafa màggat léegi. maxu moo bees waaw maxu maxu baax na waaw. man may wax ak maxu maxu mooy yëkkati téléphone wala lii kay mbala ko moom moo lay woo. na la Cheikh Ahmed Moussa yoo paree ñëw. maxu yow bu ko woo de. waay moo lay woo. waaye bi sama xol lii de boo ko defee moom xoolal sëñ bi danaa kontaan trop wóor na sax xam na ne dinaa ko def. Mhm. waaye ko def. boo ni mu la ko waxee nii noonu la koy defee bu la nee mataar dana la mataar dana la woo. barke Serigne Bamba te da ciy boole ay ñaan ñu dégg caat. comme ni ñu dégg ñaan man man barke Serigne Bamba laa la wax ku ma mus ni toog déglu ko dina la woo kooku woona ma. dëgg la Matar Diop Matar Diop Sobatel bu baax dëgg yàlla tamit bu baax la moom daal na nga xam ne léegi benn wéykat laa am muy yow te dama bëgg ñu dagg ko yónnee ko Pape Diouf bu mu ma wéyati man Pape Diouf si boobam bëgg bëgguma mu wéyati ma yow rek laa bëgg nga wéy ma. non mais mais mais bi wuy ma sëñ bi. waaw Pape Diouf nag moom kaay ma wax la benn affaire nag sëñ bi wuy ma man dama ko bëgg ama bëgg yow ko bu mu daa mel ni waaye yow bëgg man léegi yow laa bëgg yow bëggal laa bëgg loolu kay du problème. waaw waaw jeex na waaw waaw na waaye moom moom sama maître la ndax moo woy iñaan baaxul te iñaan baaxul ba mu woy noonu loolu tey rek moom laa doon déglu wóor na Serigne Sall. woy boobu di nga ko tollaleeg lii. dama bëgg son bi nga tijjee ko ni nga ko tijjee woon keroog. ni nga ko doon animé. caat dégg nga woy bi li nga ko woy. ni nga doon animé soo bi nii laa bëgg nga animé ko tey. mbës réseau bi neexut def léegi te réseau bi wàccee la insister réseau bi wàccee la ndey bébé dangaa wéef caat sekk caat ndey wéef na la. ndey kebe nee na wéef na caat six cent mille. dégg ko ma la koy liiral sànq. gisuma ko. ah ndey kebe day yéeg. ndey de ah ndey mënta yéeg. prix la wax. waaye damaa xam ne caat bu caat bu fi recevoir woon six cent mille nga yaakaar ne. am ku bind mu nit wéew na cent mille. kan. nday kebe mu ne wéef na ma ñaata. six cent mille. six cent mille la ma wéef. waaw non c'est pas vrai day tooñ rek. day soob de ah. kon de Cheikh Ahmed Cissé kon Cheikh man Cheikh Ahmed Cissé ma wéef nii tey rek man waxuma six cent mille te gisu ko six cent mille man Cheikh Ahmed Cissé man man ne damaa man damaa ma taal bi dama bëgg ba pare du heure bi may live bu fekkoon ne yow sept heures bi laa toog ni ba ne neen la ah, dara ñii soixante mille lañ dugal ñoom ay waay suba jàmm sama sama mbokk yëpp na nar ñëw kër ga suba non benn dix mille rek nga fi am caat amoo xaalis bu bari waa moom moom kay bu yeboo seex bi gi nga wax loolu quoi ndax xam naa suba correspondance am moom géejawaay xam naa ne fële arrêt du bales kër ga dana fees dellu suba ndax ñu ñaa ngi may woo appel appel normal sànq ba léegi ñu maa koy woo ñii appel normal ñii appel normal non Aliou seen live day bëri mais ñii ay waaw waaw loolu da la ñu wéef wax dëgg yàlla ñu bëgg fee nekk dama woo ni rek loolu bëriwul te maanatu mi moo xoon cinquante mille yónnee gudd ba tey yow daal yal na la yàlla defal sutura ñàkk gi nga nekkee yàlla <laughs> na dañ ñàkk gi yàlla na dañ <laughs> waa Mbës Seck bég naa ci moom bàyyi leen nit ki amul dara caat benn mille francs la fa xaw ma trois mille ñàkk la def démb benn mburu la ndékkee añ mu lekk ñaari tibb gor la reeru ah, sëñ hmm? yow yaa yàgg duggal ci suñuy nopp ñun taalibe yi hmm. dëgg yàqul ànd dëgg la ci yow la yow mi ñu doon muñ loo keroog ci muñ loola yow tegoo fi benn son benn wéykat bu aay mu mën nga ne nañu muñ diw la diw la ci lan comme je comprends yaa yaa teg yaa fi teg son bi di ñu muñ loo di naan <laughs> muñ leer rek comprendre mën nga wax ne jarul comprendre nee bandi la mën nga jàll te wax ci leneen wala mënoo barke ATM ATM bëgg na la nag sëñ amul ci man xaw Papis Ndiaye di ba di ko indi studio Papis Ndiaye kii na ma Cheikh Ahmed indil caat studio Papis Ndiaye xaw ma Papis Ndiaye wallaay xaw ma ko waaw ah, Papis Ndiaye mbir la de xaw ma ko musuma dégg turam billaahi wallaay taala dama xamul nag ba xam Papis Ndiaye guitariste bu bu waale lay wax wala da da beneen Papis bu njëkk ba mais Papis Ndiaye boobu est-ce que mu ngi mu ngi gérer mooy guitare bi ku daan yuuxu guitare te xewoon si woon Sénégal. waaw est-ce que boobu la. waaw xam naa ko waaye ne kii mooy Papis Ndiaye xaw ma ko. waaw monsieur Papis kii yaakaar naa Papis Ndiaye bi muy wax mooy Papis Ndiaye bi yor clavier waale bi di dugal mélodie yi neex. man su ma nit rek bàyyi ma ci Matar Diop suba teel li ma bëgg ci caat moom dina yëkkat téléphone woo caat defal ko ko caat jàll ci leneen. man xaw ma professionnel. insister caat moom bu bu fi mu toll ku la wëy te waxul taalibe sëriñu mbës moom ah wëy ba neexul. da duma ko teg. mais sëñ bi yow yow yow yow yow moom man yow man yow war nañ maa mën a wëy wëy gu métti gi nga ma koy xaj wëy bu neex wi. non ATM dafa buruxlu suma wéy nga bugg a buruxlu man. non xam nga ATM li mu buruxlu ñu wéy ko ko neexul moom gaa. mais est-ce que maa ngi métti lu bu ATM bi yow sa bos ñëw nga buruxlu ci saas. mais Thiat Seck temps bi moo wéy sax moo dàq bi mu la wéy. waaw loolu yëpp na dagg naa ko. waa xanaa après laa doon boo yé boo ko yéegalee YouTube dinaa ko wër. wala kii na ma jël ma jëlaguma ko de. mu ne ma man la yaaya chambre cinquante ca rëbës mu ne naa ko <laughs> doo ko jël yaaya gën nga yàqal sa bopp man bugguma mémoire kaso ku ma xamanteloo kaso sa bugguma laa dégg du endroit bu baax <laughs> ay chambre cinquante fu mu nekk yóbbu nga ma ci rang douze yóbbu ma ci xuuñ nga <laughs> ma fa xuuñoon yóbbu ma ci tëjeeg tëj oh yaaya yaaya bu may wax jël ma s'il te plaît jëlu jëlu ma la de yow. mënoon naa yem ci jël ba rek. ah bisu Thanksgiving yow nga war maa fàttali naan ma sëñ bi ko baaxoon nga yaa ñu daan may li ci kaso hmm, ba bugguma bugguma. yaa ngi may naan naan bi ba pare ci sa bisu anniversaire. man gëm naa ne <coughs> ATM waxut caat tey la sama anniversaire daf ko ne wéy ko ne caat ne anniversaire ATM doful dina jàpp ko ma juddu janvier Thanksgiving ñu ne ma sa anniversaire ba pare mbës nga baadoo la caat na anniversaire nga nga xool bëti du anniversaire am lii kañ la ma xam ne su ma la bàyyi nga dem ma ne la ajul loolu ajul loolu ba pare yow nga koy aw loolu bi ma gisee mu insisté ci laa ko ne dee du suma anniversaire mu naan waa nu mu demee <laughs> <laughs> non mais caat moo neex caat daa neex. nit ku baax la. <laughs> ndeysaan mais ñu mu ko daal. <laughs> Ajiyaama nga def Ajiyaama stop what you doing. yaa yaa na nga def. baay. waaw si maa ngi lay ziar lu bare bare bare. maa ngi lay delloo nekk maa ngi kuul. ne ko xàmmee nga ma. déedéet. ah Ahmed Ahmed maa yow rek a sant Cissé. Ahmed man la yeeyaa. maa ngi xool waay. waay Ahmed. ma oh, yaya booy Pastef bi. waaw force spéciale. waaw waaw waaw waaw maa lay ziar lu baree baree bare maa ngi lay delloo ziar mais léegi xanaa yaa ngi ñam ci nguur gi. waaye am waa ñi ngi koy xaar. ah yow nag munoo dem kaso sonn ci nguur gi ba pare ñu ñëw di séddoo ta moso non day ñëw incha allah. maa ngi lay ah. ziar lu bare. maa ngi lay delloo ziar si sa ngari bëggoon laa nuyu jàmm santax yow ndax euh, nekkoon nañ nekk bu rafet. dëgg la. yow moom wax dëgg yàlla borom baax nga. jërëjëf. di ñaanal rek. yàlla may la fan bu gudd ak yaram. incha allah suñu ngaari waaw ñu ngi lay bëggee lu bare bare bare. waaye bëgg naa de. waaw di la lu bari man keroog euh, def naa demande sax mais euh, dama patiente lu yàgg jëluloo ma ma xaaral naa euh, kii fekk sama téléphone dafa doon waaj vide. waaw depuis boobu léegi. ci la abonné si yow sax. def la amin pour que may yàlla bul delluwaat kër gu mag man man xam naa pare naa fa man yàlla ñu fa yàlla musal musal fa bépp jullit musal fa bépp doomu sëñ Bada de euh, mu fa ak juge ak Moustapha Diakhaté yàlla na fa yàlla jiir day jàngale amet du ku du ku moo fay mhm. ndax mënuloo te xam sa réseau bi micro bi mbës bu lu tax nga wàccee nit ATM waa ATM yow yaa wax caat seeg teel suma anniversaire man gëw ma ne ko wax pour man da nga ko ne wuyu ko rek. mu jàpp barki barki Serigne Saliou dama ne ko mu woy la rek néew ma ko dang tey la sa anniversaire bi. moom moo ko interprété loolu caat la ba pare sa noon bi fi fi nga nekk ci ATM si yow nga def ndànk boo def ndànk da wàcc mu yéeg. waaw yow mbës. wax nga dëgg gis nga. mais mais mais Samet. waaw gis nga yàlla lu mu def mayal ATM mu wax su wax bu ko dagg ATM. waaw Samet yëg nga fecc bu bees bi génn. déedéet. wangentu mbës a nekk ci TikTok bi di wangentu tey di wangentu man musuma gis xeetu fecc boobu noonu. man suma mbës man. mii toog mbës wangentu na fi tëñëx fecc boobu day tëñëx ci kanam. tëñëx ci ginnaaw. wan leen am naa ñetti ñetti taalibe tey yu ñëw jébbalu. non man dama mujj tiit sax. Ah, nit ñi fekk ko fa di ko yegg naan ko sa sëñ bi de déglu lu lii lam la jàngal ak li ngeen bokk. message bu ne enregistré na ko yónnee leen ma ko suma whatsapp ma gis ko. li ma metti ca la mu tontu mooy. Hmm. dañ la yónnee enregistré bi ndax nettali ci làmmiñu borom la dàqee mais seex bi. léegi tey taalibe yónnee ma ko ñi ñoo ci gaaw. mais seex bi barke Serigne Touba Mbacke ndeysaan. Euh, <laughs> yàlla na sa mais ma seex <laughs> bi yàlla bu ma tiim xam na ni maanaam yéene yéene laa am ci yow quoi yéene. tey tey mbës. Hmm. su ma amoon mën ko te di ko def. Hmm. sama poos laa yéegati man yónnee ko caat ne ko génneel album génneel son bu bees ci Cheikh Ahmed Cissé hmm. yéene boobu man am naa ko ndax Cheikh Ahmed nag dëgg nag bu neexee ba neex rek bu neexee ba neex rek man ATM lu lu ne wax naa ko Cheikh Ahmed nii mu musa mel noonu lay mel du soppeeku baax na bëgg na nit yiw na gore na ba pare fonk na doomu aadama ba pare woyof na. loolu kañ lay di am. waaw loolu yàgg na loolu ñu nekk ci commentaire yi sax mën nañu ko seede. léegi tey loo wax ci sëñ bi yow. alhamdulilah <laughs> mi ne seytaan ji sa son bi ngay teg. dama ne tey loo wax ci sëñ bi tey yow loo wax ci sëñ bi tey. ak démb yëpp man sëñ bi ak lu ma ko mënti waxal. ak hmm. lu ma mënti wax si sëñ bi. Hmm. mbaax laa xam ci moom. ah ak loo mën a wax baax nga xam ci moom donc li ko doon da ko doon sos. <laughs> Kevin nee na xamala xamala bu baax ku baax nga wallaay oh no Kevin yow kenn gënu la ndeysaan Kevin mii tamit kenn gënu ko gis nga nii. mais mën ngaa baax ba pare di jëw tey da nga doon jëw si. see di gisee ci live bi noonu laa ko doon gisee mais nit ku baax la ba pare macha allah nit ku nit ku baax a ngi ak démb yëpp da doon jëw sëñ bi dëgg la wala du dëgg. non loolu moom du dëgg. indil preuve. woy ma. <laughs> xam nga live bi sama live la woon mën naa koo dagg envoyé ko sëñ bi dëgg la wala dëgg. jarul dëgg la wala du dëgg. waaw wala dëgg kam wax la benn affaire nag. non moo wax dara waaw wala dëgg ma lii. may ma ko am waa mbës may ma lii. may naa la lii yow ak lu ma lu ma la mënti wax. Ah. yow it ku baax nga. yow yaag yaag Amar. bi Pa Aziz naan artiste yëpp ay doxaat. mais mbës est-ce que xam nga ne am na ku ma xas ne ma damaa modde. la xas mu ne yow da ngaa sa wax jii ngay wax dina ma may ma tontu ko ndax bëgguma nga yeggale ko. wuy ma yow waxu waxoo doxaankat yooyu sëñ bi ci la bokk yow waxoo ko. Eh, eh, mbës. ah yow kañ nga dër wala doomu ndey abaano stress nga. daf daf maa <laughs> mbës. maa def interview ci Aba ñu laaj ma ci abaa ma wax ci sama xalaat abaa audio ma gis nga yow eh, eh, eh, ATM yow gis nga yow bu yeboo booy wax nga génnee ma ci mais mbës problème mu déglu déglu audio bi laa am man <laughs> ba nii waxee yow. Aba mer na audio yónnee na ma audio booleka na ma te mënumaa yeggalu audio bi ndax dër bi ba pare lu ma metti mooy audio bi cinq minutes la mais mënut ta yegg ndax dër parce que bu ne. yow ya da ngaa nekk di dugg ci gardo gardo Aba no dugg ci gardam dama xam yow. yow xam nga Aba xam nga Aba. du dara. du tus. abaa du kenn bàyyi naa la ak yàlla de. barke Serigne Bamba Mbacke man it du ma ne kenn bàyyi naa la yàlla. Hmm. waaye yow man la ay téyam sëtu Seex Samba Jaara Mbay al tëgg Sadji Amadou Gueye cuncun dam ma Yacine Sagor Baba Yacine Sagor Alpha Midi Balakos le meilleur animateur du monde borom l'est l'ouest le nord et le sud sëtu Seex Samba Jaara Mbay bi maa ngi nii toog du daara damaa ko. MFB. dama war a sa gëm yaay taalibe yaay taalibe numéro man du ma dalal jigéen. ah ma tëj sama micro sax dama marié. li may sëy jabar yóbbu na fu mu mel na ni yaa ngi wax mais dégguñu la de. kii di mel na ku ñu xooj ci ndox nii. wax yàlla waaye daw si mi ngi mel ne ku nekk ci biir ndox di wax. yàlla bu seen voix yi génn. mais mbës mbës sama soxnaa ngi génnaat xaaral maa ngi ñëw ci kanam dafa nekkoon ci douche ah, mais man lii tamit lii lii tamit yéen du ñu def kañoon kañoon nag dimbali waa ji barke alxuraan soxla naa ndimbal seex bi dama kiiw rek mais soxla naa ndimbal de yàlla xam na ko salaamaaleykum ziar naa leen na ko sama àq dal bu rëy mbës ci kanam <laughs> de. mbës ci loo ne. waaw maa ngi nii nday ndaya lépp jaam. yaa ngi cool. waaw nag caat sekk bu la wooyee nag dañ koo war a teral nag du dëgg. teral teral ngeen ko borom ànd laa buri. waaye war naa yow la mënoon way ci ñi la njëkk a way laay boog sax du jiitu ci yow. wallaay dëgg la. mais nday yaaw caat sekk war naa woy naan woy bi du ko woy ci ñaaw. ah yow. bés barki Seydina Muhammad di nga bàyyi sam papa yow yow bëggoo ñaanu sëriñ man xool naa waxoon mais yow bés yow yow ñaanu sëriñ bëggoo mais maag moom sax dañoo nuro <laughs> merci beaucoup mais wax ji booñ bu dee wëy bi du ku ñaaw moom moom mu ko wëy waru ko koo wëy ah nag kaay ma wax la sama papa ñaawul ñetti di la seetaan doomam yi di la seetaan nga leen seen papa dafa ñaaw <laughs> vraiment ñaaw na de wax ji moo ñaaw yow mbës yow dina bëggee amoo loo wax caat ñëw ñëw bërki dem boo jaay tegoo fa soo bi te danaa buñ bi dafa gudd ak danga ñaaw du benn waaye jëkkëri jàmbur bi ngay wax dafa ñaaw mbër ak papi jàmbur mais bi yow yaa mën a teg fii diwtiir di ko jaay teg fii soow di ko jaay te benn du porte préjudice boroomam. mbës li nga wax caat waroo ko koo wax. caata ñëw fii tey sëñ bi yëkkati ko bii yëkkati yow mbës xam nga ne xam nga ne sëñ bi li mu sëñ bi sëñ bi nga xam ne xoolal tey li mu sol ni mu seere sëñ bi tey li mu sol du xale bu ne moo koy sol. mbës xamul loolu dafa iñaan. daalu bi daalu sëriñ bi de ah yóbbu na yóbbu na may bu njëkk de. dàll bi de. wéykat yu mag yi sax pour ñu sol ko problème dañ koo ñemee man sax ah. papa man ma riis papa nga naan ma la dem def ah, mbës li nga ne bàyyi yooyu nag ah. mbës dafa soxor iñaan taalibe bu teg sëriñam bët la doy na kii daraame yow daraame daraame dama yow xool li mu dugal ba xam dem nga vérifier li mu dugal wala waaw mbës bu dégg ma rek at na am solo non yow da nga am juum bi da nga xam juum bi daal juum. nga seddaale ma ci paypal bi. ak man mii moom dama lay seddee. man ne sama sëriñ bi damaa romb direct bi rek parfum bi moo ma yee dama doon nelaw. yàlla baax na cousine man ak sama cousine de sama cousine la. waa ndeyaa yaaram. ci loo nekk moom bébé. daa sa parfum tax mu xam. ah dama dama doon nelaw de ndeyaa barki yàlla huit heures huit heures laa war a yeewu dama romb damaa romb live bi rek parfum sëriñ bi ba ma frappé rek ma yëg. Ah, yàlla baax na déggal lool. ah ma ah, tiitee te sànq damaa ñëw ci live kii mu bëgg maa récupérer mu ne ma euh, jébbalul ci man ma ne ko non non jamais man ci sëriñ bi rek laay jébbalu. yow léegi mbës da ngeen nangu njëbbal ah. sama ginnaaw. <laughs> man mi mbës wax na ma ko cheikh bi. mbës wax na ma ko man mi di wax ak yow di. non nday yaa xaar yow basal nga <laughs> ne. mbës da nangu njëbbal sama ginnaaw. sànq. Ah, dama dugg sa live nga ne ma ngir yàlla bàyyil sëriñ bi nga jébbalu ci man. ay mbay. lan. ma ngir yàlla waaw bi yow joxoo ma fi autorisation ne ma képp ku ku bëgg a jébbalu tey jigéen bu moolee rek accepté. bu dee dafa dafa am fu ma la teg mais pas en général. après ma laaj la ana sëriñ bi nga ne ma sëriñ bi demati na. yaa ko wax. Bessél du fen su ma la day nettali rek. li am rek maa ko fekkee waaye du sama sëriñ bi tamit fu mu nekk neex fu mu nekk rafet na de. yow àdduna dafa benn solo Amérique ci dàq. mais sëriñ takkandeer bi jantal na de. yaa ngi yaa ngi mel ni Sonko buy njàpp. la ilaha illallah. mais bi nag waaw du ñu ci takkandeer bi. lool. li yàlla rek. nga ne li ni ah ah papa nag yaa jantal nag. Cheikh Cheikh Ahmed Cissé. yes. oto boobu rafet na jantal ban bii. waaw bii rafet na ci yow lool sax. ne sama fekk. mbës bàyyi sëriñ bi su fi nekkul ngay def dafay def taalibe xam nga ni boo ko soloon Sénégal ba ba dox benn cinq minutes ba poussière Sénégal bi jàpp la seex bi man yéen man yéen maa ngi musul ci yéen Lagos yes and the Muslim side. Yes, yes. But I'm originally from Senegal. waaw dëgg yàlla sànq moom nag maa bëggoon récupérer maa bañ. How long have you been here? man man mii sax moom di la bëggoon na maa récupérer bi muy wax yi li ngay wax ak moom yëpp maa ngi dégg du maa fekkee. that's the last bi ma la a mbas ana sëriñ bi loo ko wax. xaar leen dafa am beneen besel faal. man tey laa waaru. But I live in Seattle, but my sister lives here. I come to visit I was enjoying the pool mm-hmm. side and my stuff. Nice meeting you. bi wax téléphone xaar ba sëriñ bi wax pare sëriñ su wax ci live bi yëpp laa koy nettali balaa koy wàcc. I'm coming and going. I I here like two months. But I always go. I just travel for business and go back home. I don't know much. sëriñ bi tey su paree wax téléphone li nga doon wax yëpp naa ko nekk li nga ne nekkal rek laay ma soo paree nga sedd mi ci PayPal bi nga yor you welcome yónnee mbës ah, ñag di leen laa dajal mu xool ma xoolati ma na ma africain nga bëgg maa dóor naan ma dama bëgg ñu xamante ku may digal ma ne ko yàgguma fi weer laa fi am merci beaucoup. damay dem ak business laa dem mu ne ma da nga fee dëkk ma ne ko damay ñibbi suba. yow soo ma dóoree mu jaaxal ma de yow mii. romb rek papa dégg ma la wax ma ne sa dàll yi boo ko soloon Sénégal ba dox cinq minutes ba poussière bi jàpp la weex weex. bi noonu dara mais xoolal ñu dàll jongama. daay daay déggal lii. ñoo jantal sëriñ kay. Ah, xam ngeen ne moo suma ginnaaw mbës naa leen kaay leen jébbalu yéen a yee bañ bu ngeen jébbalu. ah moom ma ko wax de man moom loolu la ma wax sànq damaa ñëw rek mu ne ma il faut nga bàyyi sëriñ bi nga ñëw jébbalu ci man. Ah, yow Cheikh ne. Ah, ba pare mu boole si di yu yu rëy yoo xamante sëriñ bi mu ne sëriñ bi demati na. loolu moom mbës yaa xool lii lii xoolal lii ci verre. lii ci verre. xoolal bi xeetu jasneer. xoolal baaraam baaraam bi moom <laughs> baax na xam nga ne xam nga ne suma suma rakk anam foog naa nekkul fi sax. mënoo gis. Ah. suñu waa jaa ngi nii Padros Mbay. Padros démb woo naa lii mooy ba nga may ñaanal ci rasulillah. ñaanal nga woo nga ma fa. di man ak Baro la. Baro. man maa ngi leen di ñëw bàyyi. maa ngi dugg si nii. Ndeya kontaan naa ci yow Bessel Fall amal jàmbu MFB. papa I love you on t'aime. I love you too my baby. man da tey laa waaru man. mbës ne papa sooy kita ñuy dem sooy dem ñuy dem doo fi bàyyi de. ñëppay dem.